aousubillah min asheytan irajim bismillahi irahmanirahim wasalatu wasalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi di nuyu mbokki taalibe yi bu baax a baax a baax waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba naal bi nga xamante ni am na ko ci yoonu maamamu tedd wi suñu borom matale ko bu baax a baax a baax niki noonu lañ koy ñaanalee bépp kilifa diine waaye ku gis eh, fii ñu taxaw it eh, di bundu kër mbake Mbacke Madina xam ne tey jii lu rëy amatina lu lay rëy la màggal gi nga xamante ni saa su nekk rek bu ñëwatee mbokk taalibe yi ak njabootuk Serigne mbake Madina ci njiital eh, Serigne Cheikh Bombali mbake di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. ngeen gis ne màggal gi bi ñu xëyee ba léegi dongo yi tàmbalee nañ ko li nga xamante ne mooy njàngum alxuraanul karim ni ki noonu lañ koy wéyalee ci sunna gi nga xamante ne kenn ku nekk xamoon na ne gisoon na sëriñ Mbàkke Madina taxawaayam ci yoonu lislaam waaye taxawaayam it ci yoonu murit ba tax na màggal gi saa su nekk bu ñëwee rek dina ut màggal yu bari ci lii nga xamante ne mooy xeetu doxalin yoo xamante ne day dëppoog sunna ngir dàq ci bëgg ki nga xamante ni moom la ñuy fàttaliku muy sëriñ Mbàkke Madina kenn ku nekk xamoon taxawaayam ci yoonu lislaam du ñu def lenn lu mooy lépp loo xamante ni rek am na fii ci Touba fii ci kër Serigne ma dina Touba Vision def ci kéemtalaay kàttanam ba indil leen ko kon ne surtout ñu dikkaat ak yéen suñu yeneen élément wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu